bon li mu wax rek mu ngi leen di sant di leen di gërëm bon nag peut-être euh, li ngeen wax léegi rek peut ay lakin yu ndaw la rek mais bu soobee yàlla dinañ ko ko yeggee ñun li ñu leen mën a wax rek mooy mat table d'accouchement bi ngeen fi indi fi ak chaise roulante yi dafa nekk chaise boo xam ne wax dëgg fa yàlla comme moom li mu ko waxee rek Euh, population bu Thiès ñu ngi leen ci gërëm bu baax et puis ni ngeen foog ne dina yàgg dina yegg fi yegg parce que bu ñu jógee fii dinañ ko imprimer dina ko jégee ci préfet dina ko yegg ci gouverneur yóbbu ci médecin chef région pour ngeen fi ñun fi ñëwee fii ans 15 ans ngeen fekkaat fi table mu ñëwaat ni mu fi fekkee kon nag nañ continuer collaboration boobu ñun nag lii lañ soxla li santé publique la population de Thiès ngeen di jàppale ñëpp ngeen di ñoo leen ko yeggee ngeen wax leen am na beneen projet yu fi nekk yoo xam ne bu ngeen ko a beneen collègue bu wax fii Daaya Daaya Diallo aussi dafa nekk nit yoo xam parce que ni muy am contact ak population bi moom moo ëpp contact ñi nga xam ne ñoom ñooy def côté technique parce que ñun côté technique mooy li ñu mën a def mooy consultation des mais Daaya service social ñoom ñooy dajale lépp jafe parce que li ngeen def social la kon donc ak mënta def rek foofu ngeen ko jaare ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ndalewu Ndeye Fall maîtresse sage femme centre de santé euh, li ngeen def euh, kii bi projet la asphalte ñoo ngi leen ciy remercier waa di leen gërëm bu baax parce que le don la c'est venu à son heure ñun centre de santé lañ nekk dixième suñu capacité d'accueil dafa dafa yaatu yemuñu suñu cible kese fu nekk la nit di jóge di ñëw di accoucher fii donc bu ñu ñëwee dool ñi beneen table d'accouchement lu neex la lu ñu lu ñuy rafetlu la lu ñu di leen ci sant di leen gërëm parce que médecin chef fi nekk lu jëmale hôpital bi kanam moom la bëgg parce que boo leen gisee maternité bi melu woon nii temps yi rek la ko réfectionné commencé jënd ay matériel donc bu matériel ñëwee dollu dellu dollu ci ko ñu ngi ñu ngi leen ci sant di leen gërëm comme li ngeen wax ne hôpital dixième nit ñi dañ koo naw cees accueil bi sage-femme yi fi nekk ñu xarañ lañ accueil bi baax na moo tax malade daw du ñu wut si donc dañu war a am matériel boo xamante ne malaadi bu ñu ñëwee dinañu gën a ndaw li ngeen wax dinañ yokk sunu ngóora ci liggéey bi gën a góorlu bu ko defee yu mel nii du fi mën a ñëw parce que ñun bu ñu amee matériel bu ñuy liggéeyee rek ñun dañuy gën a sawar te dinañ gën a góorlu bu soobee yàlla. taf fi dara pour ñu xam ne ASPAEL maye na fi dara affaire bi du yem si entre nous rek. mais aussi waa Sénégal dañoo war a xam ne ñun ñoo ngi góor góorgóorlu tibb leen di di jàppale mais su fekkee dañuy jàppale ñi war a xam xamuñu dañuy ni dañuy jàppale administration war na xam dañuy jàppale su administration xamul ni dañuy jàppale aussi kële sa àll ba rek xam ko ki ñuy jox rek xam ko aussi ñun it aussi ñun ñoo ciy des donc dañuy jàppalante à tous les niveaux incha allah lu ñu am rek ñun jóob bi affaire yi di ñu toogee ni amuñu affaire yi xaw a dëgër te ñun affaire bi dafa war a jógee parce que dañ see sonn ñun on a tout fait pour mu ñëw mu am lu xaw a dëgër comme ni Lamine waxee après Diop ñëw suñu partenaire la lu nekk lañuy ñuy jàppale donc dafa mel ni moom si ñun la bokk donc immédiatement mu jël téléphone am jéem a seet réseau mu woo la donc affaire bi noonu lañ ko déclenché nu mu gën a gaawee ñu def ko donc il est ngi si suñu biir daal donc yooyu aussi sa disponibilité aussi c'est très efficace taf-taf ñu xam ñu xam fi ñuy taxaw donc ñoo ngi la siy remercier bu baax parce que kii dimbale su fekkee ne amul répondant boo xam ni dafay dafa gaaw si affaire yi rek daf ñuy décourager ñu loolu la donc ni mu def kii bi ni mu def communication rapide bi mu def ñoo ngi leen ñoo ngi ko siy gërëm bu baax di ko sant parce que soulagé nañu bu baax quoi merci docteur ci laa ko woo téléphone ñu ñëw fi fan yële ñu indiwoon fi benn appareil boo xam ni pour xale yu ndaw yi bu ñu fàtte moom la ñuy pour ñu mën a noyyi ñoom lañ ko joxoon léegi bii nii bi mu ko woowee démb woon naa ko mënu ma dañoo amoon réunion démb bi mu ko woowee damaa ne dañoo am réunion tey ci suba bi mu ko woowaatee am na benn ndaw suma yeb pour ñu dem foofu ngoy ndaw si fi ñëwoon sànq pour ñu indi fi bagage yi yëpp daal ci ay la jaar lii fi ñëw nii yëpp ci moom la ñu yàgg nañu fi indi ay bagage ñun ñoo nekkoon allemand yi ñoo nekkoon am fii ambulance indi nañ ko fi fii hôpital dixième bi Mercedes indi nañ ko fi Mercedes 190 break allemand indi nañ ko fi hôpital régional Mercedes boo fa gis allemand ko fa joxe bii nag ONG bi ONG bu bees la ñoo ngi nekk Kër Mame El Hadj ONG Aspay léegi nag affaire bi ñu génnee ci Corneille bi laa ne gars yi am na benn maire boo xam ne xam naa ko dixième mooy maire daay nañu fexee daal buñu ko joxee ci ay loxom waa hôpital dixième yëpp dinañ ci jot affaire daal ci ay loxo loolu foofu noonu la demee waaw ah, ok merci jërëjëf